man maa ngi tudd Aliane Diop euh, ci mairie bi la nekk comme conseiller municipal et maay président commission entrepreneuriat jeune femmes et coaching alors li tax ñu daje fi tey dañu am partenaire suñu partenaire mooy IMSEC xam nga jamono yi li si ginnaaw yéen ñëpp déggoon ngeen ko am na financement bu fi amoon financement bi c'était un financement de 200 millions mais comme on dit nit su fekkente ni da ko financé il faut aussi nga accompagner ko alors tey dañu fi daje woon pour am benn formation ci saponification mais xam nga jigéen ñi bi ñu ñëwee laa leen expliqué ni leen bu ngeen fàttalikoo bi ñuy def euh, financement bi neewoon naa leen Cambérène am na lu mu dëgmal Cambérène li mu dëgmal mooy Cambérène bu yees Cambérène bu yees nag ñi nga xamante ni ñoo yore mairie bi en tant que politique comme monsieur le maire bi représenté Cambérène dafay am ay techniciens yu ànd ak moom. man par exemple dama ci bokk am expertise ci wàllu entrepreneuriat parce que d'ailleurs loolu lay jàngale université de Dakar kon binôme boobu dama bëggoon tey gën ko fesal parce que bi ñuy def campagne électorale loolu la ñu waxoon dañu woon dinañ def lii dinañ def lële actuellement nii sunu promesse yooyu si la ñu nekk nii di ko dérouler am ci nag partenaire vraiment bu mag muy IMSEC te IMSEC jaratul ñu leen koy présenté ñoom def nañu ba ñëpp gis ku la indil euh, chèque gu 200 bëgg na la jàppale. waaw mais nag li ma bëgg a inciter réellement mooy ñu nekk nu ci politique politicienne politique de développement la ñu nekk parce que démb rek am na fenn fu ñu nekkoon aussi di def benn bilan ci ay formation yu nu sigil jigéen defaloon loolu maa ngi ci waxtaan ak sama waa ji Moussa Ndiaye li nga xamante ni moom mooy directeur régional fii au niveau de IMSEC pour que ñu lëkkaloo ak avec yi lëkkaloo ak IMSEC lëkkaloo ak sigil jigéen ak ñeneen ak ñeneen pour mën a am ay réseau yu yaatu sànq expliqué naa leen ne leen jigéen ñi bi ñuy ñëw ñoom dañu yaakaaroon ni dañuy def formation comme formation yi ñu daan def noonu rek wane ni voilà ñu daal di def nii def ay ay nataal wane ñun nekk tun ci logique boobu nee naa leen da ngeen ñëwoon pour xëñ yaakaar ni benn la mais ñun da leen leen accompagner ba mu nekk fukk ba mu nekk téeméer parce que am nañ yeneen partenaires yoo xamante ni dinañ ci war a mën dugal seen loxo pour que jigéen ñi bu leen jàngalee ba pare ñu seet ak waa IMSEC naka leen di financer ñu am genre une euh, usine yu ndaw yoo ay ay saabu bu boobaa Cambérène amatul benn feneen foo xamante ni dinañ ko jéegaani pour wuti saabu. li indi loolu mooy indi ñuy mën a lëkkaloo aussi ak yeneen avec yi nga xamante ni ñoom dañu nekk si yeneen localité yoo xam ne dafay nekk bu boobaa ñoom dina mën a lëkkaloo ak ñoom ñu ñuy jox bagage lu mel ni Sine foofu sànq ci delta du Sine Saloum maa ngi doon waxtaan ak Aziz bi yore projet bi am na ay projet yu mu fa daan jàppale ak man am na ñoom fay jàppale ñooñu ñu lëkkaloo comme ça lépp luy joxoos léegi luy paañ luy yéet fondamentalement daal Euh, expliqué waat bu baax ñu xam ni Cambérène ci développement la nekk adjoint mën na ko seede ñun ci commune ci ci euh, ci conseil municipal ba amuñu si xaj ak seen ñun wenn say la ñu doon te wenn say wépp mooy pour que ñu jëm ci li nga xamante ni moom mooy développer Cambérène ci loolu lañ nekk monsieur le maire loolu laa mënoon wax en introduction en attendant que ñeneen ñu dugg ci wax ji la allahumma salli ala sayyidina Muhammad